sitting bi li ko waral mooy dañoo gis ni dafa bëri ay maanaam doxalin yoo xamante ni dafa safaanoo ak yoon yoo xamante ni moom la Aliou Sall def ci mairie bi ñu mën cee lim ni 2017 dafa am ay fonds yu ñu génnewoon pour culture du fonds yee am solo de mais nañu ko génnee ak nañu ko joxee parce que dëkk boo xamante ni dafa tegu ci yoon xaalis boo xamante ne xaalisu askan wi la boo koy génnee dafa am noo ko war a génnee ci loolu ci la ñëwee daal di daal di jël benn association ni que dañuy def xaalis bi ci sa tur léegi bu ñu ko defee ci sa tur da nga koy retirer nga indil ñu ko boo ñu ko indilee ñun ñu jox la association boobu ñu def ko ci turam daal di teg benn programme boo xamante ni dañu programme bi day am te programme boobu du mas a am et juste pour génne xaalis bi léegi bi loolu amee association bi ñoo ñu jox ko un million association bi dem léegi nag. ñu jël ay ay structures yoo xamante ni jotewuñu dara culture daal di leen di sédd ci xaalis boobu jël nag ay acteurs culturel la ku leen neex ku nekk ñu jox ko ci xaalis bi nu mu ko nu ñu ko bëggee rek ñuy wane foofu nii maanaam loolu dafa safaanoo ak yoon koo xamante ni da ngay wala ñu denk la alalu askan wi nga war ko mën a teg ci yoon dafa am noo koy doxalee mais yooyu ay affaires yu élémentaire la yoo xamante ni c'est de faute grave ay fautes yu garaaw a garaaw la mairie bi voté budget 18 millions bo xamanteni pour culture la 18 millions yoyu 16 millions du moins 16 millions conseil municipal moko voté 16 millions yoyu ba at bi jeex ba tay ji kenn mun la wax fan la dugg culture gisu ko parce que ñun ñi ngi ci culture culture gisu ko kenn tamit gisu ko donc lolu ñu bëggon ci ay léral interpeller nañ la nak à plusieurs reprises mais toujours duñ la tontu ci dara benen bi moy festival bi Aliou Sall ni won da koy def ba le 23 juin 2018 mu def conférence de presse ni le 6 et le 7 octobre le festival bi di am 6 ak 7 octobre boobu yooyu festival bi amul xaalis ba ñu dégagé woon ci festival bi kenn gisu ko kenn mënu wax dara dara dara dara dara dara dara ci festival boobu amul benn information ci dañ ko reporter wala dañ ko annulé donc léegi loolu tax nag ñun ñu ni léegi ci yooyu yëpp comme wax nañ ko wax wax wax wax wax wax mu dëgër bopp tontu wuñu ci ñun dañu koy porter plainte of nag xëy na bu ñu demee nag OFNAC bu enquêté dina génn ni saa waay ndekete waa ji ciow ciow ciow ciow coow coow gestion mom ak yoon yoon da aw gauche mom mu aw droite loolu mo waral tey jii sunu ndaje bi légui comme ni ma ko waxee rek dama fi nekk tamit sama yenen bokk artistes muy wa rassemblement des musiciens mbalaxman fi ak wa culture urbaine yeeg ñëpp ñi ngi fi ñomit it euh, tujjembe yeeg ñëpp bale tout le monde ñi ngi fi ñeneen ñi ñëwul nak ñom amana dañu dañu ragal mais ñun mom euh, ra ragaluñu après baye Cheikh naa la jox man ki bi yawit nga nga wax ak nit ñi bu ngeen ko bëggee laaj it momit mi ngi ni baye Cheikh mbalax man ma ngi rafetlu pap May sa kàddu yi nga xamni wax ko ndax bu ñu waxe culture rek ñun ñëpp ñi nga xamni ñoo bokk secteur ñoo bokk domaine defana ñun ñëpp la tousser Mm-hmm. waxna deug dëgg moo tax tey ma ñew euh, pour rassemblement des jeunes artistes ñiy def mbalax ñep ci Guédiawaye nga xamni may président bi mooy structure bo xamni ci culture lay euh, lay wax man aussi ma nek ci domaine bobu di way di def musique def mbalax man ak samay frère ma association bo xamanteni ni def na yeen reconnaître ngeen ko def nañu ak yeen ay affaire kon fumay tew rek ñom la fay tewal damay wax ci seen kàddu ñom ñep parce que du man ndax ñi nek sama ginnaw aussi euh da fay rafet lépp lu may jóg di dem wala ma ciy dugg muy leer ki seen euh, nopp. Mm. waaw loolu moo tax bi Pape may sa defee lu mel nii ma xam ne tamit vraiment ñun ak moom ñoo bokk combat. Mm. ñu ne kon rafet nañu ñëw soutenir ko ngir ëllëg ñun tamit bu nekkee ci lu mel nii moom aussi mu ñëw soutenir ñu ndax ñun ñëpp ñoo bokk lu nuy kaas. Mm. waaw ndax autorités yi fii moom su géejawaay dañu négliger culture. vraiment dañ doon ay autorités yoo xamante ni. Euh, li ñuy wax ak li ñuy digge ak li ñuy def bokkul ñun nag mooy li may wax rek chaque jour benn commune mënul développer sans culture mais respecté wuñu culture bi loolu mooy effectivement képp ku ma gis ngay wax ci lu jëm ci domaine boobu man dinaa ñëw encouragé la xam ne la man lu ma xam la ndax fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi la ñu màggee xamuñu lenn mosuñu def dara lu dul culture ak art ku ñu xam ci musique nga ñu xam mais sincèrement parler domaine bi nga xam ne ci lañ nekk ñun ñuy def musique mbalax amul dara luñ ci def loo xam ne ñun reconnaître nañ ko xam ne ñii vraiment def nañ lii pour culture Guédiawaye jëm ca kanam. moo tax moo tax ma ñëw di ko encouragé di ko xamal ni ko lii nga def ni ragal mënu ko. parce que nit aussi il faut nga am fitu li nga xam ne yaako moom nga jël ko li nga xam ne yaa ko moom te joxuñu la ko même boo ko jotee boo ko jotul nga wax ko ba adduna xam ni tamit vraiment. liñ leen waroon a jàppee ak liñ respect bi ñu leen waroon jox amoo leen ko quoi loolu mooy sunuy tànk tey fii ci sitting bi. bon la culture a toujours souffert à Guédiawaye Mais la situation s'est empirée depuis l'arrivée de Aliou Donc euh, je pense que nous avons axé notre discours sur trois points, trois points très essentiels qui sont euh, les subventions de 2017, parce qu'en 2017, il y a eu des subventions de 8 500 000 qui ont été dégagées par la mairie pour des acteurs culturels. Mais le drame, c'est que ces subventions-là ont été versées dans un compte, dans le compte d'une association pour un programme, prétextant un programme fictif qui n'a pas existé et qui n'existera jamais. Donc dès que cette association-là a récupéré l'argent, ils sont venus remettre ça aux collaborateurs du maire qui ont remis à l'association la somme de 2 millions de francs. Ensuite, il y a des syndicats qui sont au niveau de la mairie, trois syndicats qui n'ont rien à voir avec la culture, qui ont aussi reçu des montants ce qui est un détournement d'objectif. Maintenant, il appartenait aux collaborateurs du maire de euh, procéder à la répartition des fonds. Ils ont réparti les fonds n'importe comment. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, la lumière n'est pas encore faite, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas d'évaluation, on ne sait pas à qui on a donné l'argent, à qui on n'a pas donné l'argent, qu'est-ce qui reste de ce montant-là. Même si la somme est minime, euh, ça a été très mal géré, et nous, comme nous prenons la transparence et l'équité, je pense que c'est une faute grave de la part du maire. Ah c'est lui le responsable. L'autre problème, c'est les subventions de 2018. En 2018, le conseil municipal, si vous vérifiez, même mm, au niveau des copies du budget de 2018, il y avait une subvention de 16 millions qui était destinée aux activités culturelles. On a écrit activités culturelles au pluriel. Jusqu'à l'heure où je vous parle aussi, nul ne peut donner une information par rapport à ces 16 millions-là. Non seulement on n'a pas vu une délibération du conseil municipal réaffectant cette somme-là dans, une autre rubrique, bon, on n'a eu aucune nouvelle. Mm. Et ça, en passant, il y a aussi énormément aussi de fonds, souvent de fonds de dotation, qui sont des fonds destinés à la culture, que la culture ne voit jamais. Que la culture ne voit jamais. Ensuite, il y a le festival son festival, le festival de Aliou aussi qu'il a créé. Et le 23 juin 2018, il a organisé une conférence de presse ici dans la salle de délibération de la mairie. Il y avait toute la presse et des acteurs culturels. Moi, je n'étais même pas au Sénégal, mais j'ai pu suivre toute la conférence de presse. Ce jour-là, il disait que le festival aura bien lieu les 6 et 7 octobre 2018. Donc, euh, ils étaient à trois mois du festival. Il y a des fonds qui étaient déjà dégagés pour le festival. On, est euh, le 4 octobre, il n'y a eu rien. Le 5, il n'y a eu rien. Le 6, le 7, le 8, jusqu'au 31 décembre, il n'y a eu rien du tout. Rien, du ah tout. Pire encore, il n'a même pas daigné donner des explications, dire aux gens que euh, pour telle ou telle raison, on a reporté le festival ou bien on a annulé le festival. Il n'y a eu rien du tout. Aucune communication n'a été faite sur ce sur ce plan-là. Donc, euh, il y a énormément de problèmes. Hein. On peut, si je continue à citer tous ces problèmes-là, je pense qu'on peut rester ici jusqu'à 18 h Je rappelle que je suis avec aussi des collègues. Baïcher, c'est lui le président du rassemblement des Malachman, des artistes qui font du Mbalach ici au niveau du département. Les cultures urbaines aussi sont, sont aussi présentes. Il y a des musiciens, des comédiens, et eh, bon, il y a, tout le monde. Ensuite, ce que nous comptons faire, c'est qu'on ne va pas se limiter à crier à gauche ou à, droite, à envoyer des lettres à Aliou Sall ou bien au préfet. Nous allons déposer une plainte à l'OFNAC. On a déjà rédigé la plainte et au plus tard vendredi, la plainte sera au niveau de la table du président ou bien de la présidente de l'OFNAC. Je pense qu'aussi c'est un moyen efficace pour euh, contrecarrer ce qu'est en train de faire Aliou Nous l'avons essayé au niveau de notre commune de Samnoter et le maire a été épinglé. Et des conseillers municipaux, des adjoints au maire étaient même obligés d'aller payer au niveau du trésor, de rembourser l'argent qu'ils avaient mal pris. Hein, euh, euh, euh, et on leur a délivré des, quittances. La même chose se passera ici avec Aliou Sall. Souvent les gens nous découragent en disant que non, avec Aliou Sall, vous allez perdre votre temps. Peu importe, l'essentiel c'est de poser l'acte. Nous, nous allons poser l'acte. Et c'est ce qui est important. Ah Maintenant, si ça aboutit, si ça n'aboutit pas, nous avons eu le courage de dénoncer les dérives, la gestion hasardeuse incohérente de Aliou euh, en matière de culture. Nous avons eu ce courant.